école bi samp nañ ko lu toll juróom at ay formation yu bare def nañ ko fii ni ñu fi formé won nañu am nañ fi ki nga xamné ne mosoon na chef d'état-major général des armées le général Sow lolu woné na qualité de la formation des formation de femmes solo Lolo tax ...ce le chef d'état-major général des armées le général Birem Diop ...avec le haut commandant de la gendarmerie nationale le général Jean-Baptiste Tin, fait ici le commandant de l'école organisation B, djarnachion ñu koy féliciter di ko encourager di souhaiter bonne chance ci élève yi ci carrière bi nga xamné dinañ ko commencer ndax kenn nañu école té mission bi nga xamné lañu wara am mission boobu am na solo té sen parrain moy Aboud Fall Aboud Fall exemple won ci armée sénégalaise lu mu wone ci dundam mooy di courage mooy di li nga xam ne mooy abnégation lu munta def rek ci fulla ak fayda la ko def donc loolu laa bëggoon wax di féliciter tamit le commandant ci réalisation yi nga xam ne loolu ñu fi fekk ndax inauguré nañu la place d'honneur bi nga xam ne dina tax dinañ fàttaliku histoire école bi ak suñ ak euh, yeneen pays frères ñi nga xam ne ñu ngi pour ñu former leen élite militaire inauguré nañu tamit euh, bibliothèque bi loolu dafa am solo ça veut dire que école bi place xam-xam dafa am solo ndax dañu war a former ndax euh, sécurité bi dafa changer ti jamono bi ñu toll inauguré nañu tamit euh, la salle d'honneur loolu souvenir le, notre ñi fi jaar parrain ak major ak euh, histoire école yi ci tenue yi loolu yëpp gis nañ ko loolu lu mu c'est que de bëgg a conserver li nga les traditions de l'école di leen féliciter di leen encourager di leen jaajëfal Thank you.